ma ni ko dafa am barab boo xam ni dafa am barab boo xam ni fa lañ daan jullee timis waaye fa lay jaar di doxantu timis waaye boo agsee rek dafay la muy jëkk laaj mbaa du ngeen sikkar ñu ni ko ah, déedéet mu ne ah def na yëpp Haj def na yépp waaw bu fa jógee sëriñ Cheikhu ni ma Haj Malik def na lépp de wante boo gisee tànkam yi baaxul toogaayu sikkaru yàlla rekk ko ko teg moom sëñ Babacar Si ma ni ko loolu Maodo seddeel na ko woo nee na ko ba mën a xamee ba léegi ñaari mbir laa la xamal waaw jàmbure bu mu foo toog di fa jàng sa àlluwa di fa jàmm sa borom waaye yooyu laa la xamal waaye njàmbure gi nag lu ma tëdd la waaw loo wax na ko ko